ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu doon wax euh, restez chez vous jël suñuy milliards lekk ko ñoom ñoo ngi daal di dox baara mi bokk na ak yeneen sénégal yi nga xamante dañ leen daal di takkal lam yi ñun nag ñu pour ñun bracelet yi bracelet honneur la ndax baara deful dara li nga xamante ne euh, war na mën a tax euh, président Macky Sall moom ak ay ñoñam ñu koy daal di takkal lii au moment où ñenn ñi ñoo ngi sàcc suñu alal et ñoo ngi dox baara mun nga revenir ci sa cas. Merci, merci camarade Aliou Gérard Keita salaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi nuyu sama camarade yi nga xam ne ñoo nekk ci gis salle yëpp ak organisation yi nga xam ne ñoom lañ bokk euh, di nuyu presse bi nga xam ne ñoom ñoo ñëw pour couvrir li nga xam ne mooy conférence de presse bi euh, di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à le monde damay accès sama communication ci benn étape bu njëkk muy présentation beneen bi ma def tuuti développement ci trois points benn bi dinaa ñëw tuuti peut-être ci conditions yi ñu arrêté et tout euh, sans pour autant entrer dans le secret euh, de l'instruction parce que je suis toujours détenu parce que maa ngi sous bracelet électronique euh, donc wax aussi tamit ci condition de détention yi nga xam ni am na à Thiès Euh, wax aussi tuuti ci li nga xam ni mooy le bracelet électronique euh, donc man maa ngi tudd Bara Thiam comme ni ko moo camarade waxee nekk membre de FRAPP euh, bokkoon ci ñi nga xam ni dañu arrêté woon depuis le mois de mars biñ may arrêté sama village la ñu ñëw à Noto Diobass dans le département de Thiès bi ñu ñëwee c'était la brigade de recherche de Thiès ñëw ni ma voilà dañu le euh, le commandant de la brigade moo la soxla pour une interpellation bon ma ne leen bon su fekkee da ngeen am notification arrestation ngeen wax ma ñu ne ma non c'est juste une interpellation bi ma demee nag ci lañ ma notifié que ni voilà dañuy dem à l'enquête après notifié na garde à vue ak ainsi de suite ni muy demee euh, donc ñu téye ñu euh, le 21 ba le vendredi 24 ñu yóbbu ñu devant le procureur ñu def ñu retour de parquet week-end bi dugg lundi bi ñu defaat ñu retour de parquet euh, mardi bi ñëw mu nekk sem beneen mardi bi mardi bi ñuy jàppoon mardi bi répété wu euh, ci la ñuy def mandat de dépôt donc yóbbu suñu dossier instruction jox ko le juge d'instruction euh, te man dama am poste yu ma dugaloon doon préparer manifestation post yooyu tax ñu jàpp ma ba pare dugal ma instruction loolu lu ma jaaxal la parce que message boo xamante ni gis nga ko ba wan ko nit ki ne ko lii yaa ko bind mu ni la waaw maa ko bind mais jàpp naa ne li ma bind enfreindre benn loi parce que manifestation c'est c'est c'est un droit donc ñu yóbbu ma instruction <laughs> donc loolu euh, xaw na ma jaaxal dama jàpp ni bu fekkee loolu ma defoon délit la flagrant délit la waroon doon te dañu ma waroon yóbbu directement devant le juge mu xool ba xam daf may tëj wala daf may bàyyi. Euh, ñu dem euh, prison wu Thiès vingt 28 mars bi euh, fa la ñu nekk dund fa la ñu fa dund euh, ba le 28 juin bi muy veyu tabaski bi ci la ñu bàyyi bàyyi ñu sous bracelet électronique donc loolu mooy li nga xam ni moom la ñu mën a wax ci li nga xam ni mooy arrestation bi beneen bi moom mooy di sant bu baax a baax a baax lee camarades ak les frères yi nga xam ni ñoo fi nekk nekk Sénégal yépp ci élan de solidarité bi nga xam ne ñu ngi koy am ci ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci biir kaso yi lu ama ama am solo la parce que kaso soo fa xasee ba nekk yaakaar naa mënatuloo defal sa bopp dara loo fa lekk dañ la ko dugalal xaalis boo fa jot ba mën a dem ci boutique yi di jënd dañ la ko dugalal buñ la dugalul dara mënoo fa am dara te condition yi metti na lool mais gis nañ ni vraiment les camarades et les frères élan de solidarité bu am solo la ñuy def ñun ñi fa nekk à un doon ñu woon sax di lekk li nga xam ne mooy lekk prison bi donc loolu noonu dañuy encourager les sénégal yi nga xam ne ñu ngi dégg à travers les médias yi nga xam ne yéen a fi nekk tey ñu gën a jàppale ñi nga xam ne dañuy def ay collecte pour jàppale détenus politiques yi wala pour jàppale détenus de manière générale parce que ñun lañ ñu fay indil du ñun dong ñoo koy lekk dañuy indil ay xéewal yu bari mais ñun ak prisonniers yi fa nekk yëpp ñoo koy bokk ay yëre dañ ñu koy indil da ngay gis ñoo xam ne ay bàllu fëgg jaay la ñuy dagg ñëw dugal ko ci biir prison bi ñu séddale ko nit ñi parce que détenu yi foofu da ngay gis koo xamante bi un mois deux mois trois mois benn yére lay sol parce que mënta am visite peut-être mënta am ñu ko dugal ay yére et ainsi de suite mais ay doomu aadama lañu te képp koo xamante bi da ngay da ngay xeex ak ak yelleefu doomu aadama wala képp koo xamante bi dangay ngay xeex démocratie wala état de droit wala yu mel noonu donc war nga bàyyi condition yu mel noonu yi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi euh, beneen bi may wax tuuti mooy environnement kaso bi dafa doy waar d'abord ce se passe à Euh, boo xoolee environnement bi soo xoolee kaso bi rek ni mu bindoo batiment yi nga xam ne yu ci ëpp période coloniale lañ ko fa tabaxoon ba léegi ardoise yi dañuy damm euh, biir chambre bi boo fa duggee mur sax doo ko mën a gis tellement ñu ngi lonk ay bool pot soo euh, lu nekk ay morceau mu nekk ay peinture boo xamante bi c'est vétus nekk en situation de délabrement boo xamante bi très avancé te au même moment Euh, suñu politique yi soo duggee ci seen bureau yi c'est climatisé seen meubles yi chaque mois ñu changé jël ay milliards Sénégal di ko def ci ay meubles ak ay réflexion kaso bi ñu bàyyi ko noonu yaakaar naan loolu ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ak ci droit de l'homme war nañu dugg ci biir kaso yi en général ñoom bu ñëwee ci biir kaso yi gars yi leen dugal ci biir détention bi ay quelques chambres lañ leen di visiteloo ay chambres yoo xam ne hors détention la duñu xam lu nekk ci biir ñu ñëw yaakaar ni li nekk foofu moo nekk ci biir kaso tel n'est pas donc ñun li ñu leen di ñaan mooy ñoom nañu dugg bu baax ci biir euh, prisonniers yi amuñu sax ay casier yu ñu dugal seen i seen i kii boo duggee comme boutique lay mel rek def ay plans ku nekk ñëw wékk say bagage lonku fii teg fii euh, parfois sax plans yi mun na daan saak dal ci kaw nit soo dal ci kaw nit ainsi de suite te loolu aussi tamit euh, respecté wul ay normes de sécurité hygiène bi aussi tamit c'est trop difficile parce que paquetage bi nga xam ne moo am dans les chambres loolu moom Sénégal yëpp xam nañ ko léegi Euh, beneen bi mooy longue détention yi am ci biir kaso bi loolu dañ koy waxal prisonniers politiques yi ñu jàpp parce que am na ñu jàpp depuis 2021 ba léegi jusqu'à présent bàyyi wuñu leen am na ñoo xamante bi tamit yàgg nañ fa am na ñoo xamante bi ñu ngi def ay 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans jusqu'à présent kenn àttewu leen te bari na prison Thiès loolu aussi tamit ñu ngi ciy interpeller l'État euh, beneen bi may mujjee mooy le rôle de l'administration pénitentiaire euh, man personnellement dunduma li nga xam ne mooy torture mais am nañu suñu benn cas boo xamante bi benn frère boo xamante bi il s'appelle Mouhamadou Makhtar Fall dëkk Pout bi muy ñëw ci prison bi dañ ko torturé dañ ko dóor ba yaram bi fu nekk dagg te noonu lañ ko indee biir prison donc mu nekk loo xamante bi cas bu ñuy dénoncé la parce que jàpp naa ni euh, jàpp nit loolu euh, jarul dóor jarul saaga jarul dara dafa nekk loo xamante bi peut-être yow da ngay dox sa yoon mais dox ko ci ni ko yoon waxee parce que vraiment dóor nit toroxal nit loolu ñàkk respecté ak ak yelleefu doomu adama la donc euh, l' administration pénitentiaire euh, jàpp naa ne seen rôle mooy ñoom dañ leen a téyeloo rek ñoom tribunal yi dañ leen di jox rek ni leen téyel ma diw téye boobu nag peut-être am na ay règles yoo xamante bi ñoo am ci biir prison bi ñoom yaakaar naa war nañu mën a yam ci sàmmonte ak règles yooyu ñun personnellement demoon nañ ba yenn ci garde yi dafa am ñoo xamante bi amuñu comportement yu grave mais daf ci am ay garde yoo xamante bi vraiment seen comportement jar na déplorer euh, parce que man julli rek ajuma parfois ma doon tegalee lu ma deux à trois ajuma yoo xamante da ngay bëgg a julli chaque jour boo ñëwee garde bi ne la julleel foofu te euh, jumaa bi mu ci biir prison bi euh, prière nekk loo xamante bi droit la et c'est un droit même inaliénable du lu nit di négocier parce que c'est la religion c'est la culture donc yu mel noonu yëpp dañ koy dund ak di euh, restreindre parfois loo xamante bi du benn yoon moo ko tere détenu bi parce que détenu bi dañu am code euh, pénitentiaire boo xamante bi moo tëgg lépp loo xamante bi mooy sart yeeg comportement yeeg kenn ku ci nekk li mu war a am yaakaar naa ñoom ni ñu war a bëggee détenu bi respecter leen seeni i règle ñoom noonu la ñu war a respecter aussi tamit droit wu détenu bi yaakaar naa loolu su amee euh, bu jàmm dina am ci biir kii bi beneen bi nga xam ne moom laay terminer rek mooy le bracelet électronique bi nga xam ni takkal nañ ma ko di wax ni nekk na loo xamante bi peut-être euh, baax na parce que dina la permettre ou moins nga gën a génn mën a dox say activité damay conseiller ñi nga xam ne ñooy samay frères détenus yi nga xam ne téye nañ leen tey euh, ñu mën ko jël bracelet bi xaw na tis tuuti euh, mais soo doxee moom benn deux jours trois jours peut-être dootoo ko yëpp te ñu bañ aussi tamit ñuy restreindre déplacement wu nit ki ci bracelet bi ba nit ki di yam ay diggante këram ak bureau yaakaar naa suñu takkalee bracelet électronique tamit war nañoo wax app bi nga xam ni moom la bracelet bi am ak yow euh, bu ñu takkalee rek xamuloo kañ lañ koy tekki euh, loolu aussi tamit nekk na loo xamante bi lu ñu lu ñu war a la ci bracelet yi euh, loolu laa ci am nga xam ni bëggoon naa ko wax di remercier ñi nga xam ni vraiment ñu ngi doon jàpp ci bi ñu nekkee ci biir kaso bi yépp ñi nga xam ni ñu ngi doon de solidariser ak ñun di ñu indi ay lu ñu lekk foofu Euh, di ñu jàppale bu baax a baax a baax a baax ba suñu conditions yi ñu fa nekkee woon euh, xëy na vraiment méttiwul lool euh, combat bi nag jàpp ñu dóor ñu tëj ñu rey ñu changé wul combat bi le combat continue parce que c'est pas un combat pour une personne mais c'est un combat pour le développement de notre cher pays c'est un combat pour restaurer la démocratie les libertés l'état de droit et tout le monde et les choses comme ça donc ñu ngi remercier camarades yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di sant ñëpp di gërëm